asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu fii seen télévision As-Samadiyya TV di nuyu ak di ziar Serigne Mouhamadou Mountakha di ñaan sunu moom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu Serigne Touba yëpp di nuyu ak di ziar Serigne Abdou Samane Mbacké moom Serigne Chouaïbou mi nga xam ni mooy jëwriñ ji ak mbooleem waa As-Samadiyya TV yëpp di leen ndokkeel. ci liggéey bu tedd bi ñu àndoon muy ziar bi waa kuréel Madhoun Nabil Mountakha doon amal ca Makkatal Mukarram ak ca Madinatul Munawwara ren nekkoon première édition bi mbokk su ngeen gisee jotaay bi ñu fas yéene amal benn plateau spécial ci teewaayu suñu Abdou Lahad Seck mi jëwriñu kuréel Madhoun Nabil Mountakha waaye ci jotaay bi ñu ngi ci fas yéene ànd ak sëñ Alsane Diouf Baye Fallou xaside yi mi nga xam ne moo jiite comité scientifique et culture bu kuréel Madhoun Nabil Mountakha mu feggoo ak imam Assane Bousso ak imam Serigne Mouhamadou Lamine njaay ñu war a seq jotaay bi ak sëriñ Ali Thioub mi nga xam ne mooy saytu liggéeyub euh, kuréelub jànkat yi waaye laata ñu leen jox kàddu gi bokk yi dañuy fas yéene dalal waa kuréel Mahfoul Nabil Muntaxa ñu fas yéene ànd ñun ci xasid ak asxaabul jannati bu ñoppee nag ñu jox kàddu gi euh, sëriñ Mouhamadou Lamine jox. sëriñ Assane Bousso su noppee nag ñu jox sëñ Ali Thioub ci turu kuréelu jànkat yi nag jox sëñ Alsaan nag mi war a tëj jotaay bi incha allah ngir mu mën a leeral nag dëgg-dëgg léegi bi ni mu tëddee kon su ko defee rek ñu maasee ànd ak yéen ak waa kuréelu marxum nabi Muntaxa ci xasid ak asxaabul jannati fii ci daarul minan ci kër Cheikh Mouhamadin Muntaxa ilayka ya xayral bariyati salaam خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع السلام الآل والأصحاب ربنا السلام قص مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد صام مقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من حباك بالكلام وشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذات مام عند النبي والرسول والهمام بك انخياد الصالحين بالزمان لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي حسن احترام جاد لنا باخ تعالى عمنا بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعاء نويت شكره عليك بخلال وخيرها يا ذا جوامع الكلام هديتي خذ كرما بالانصرام يا خالدا لي من الهك المرام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 alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa shafiina wa habibina muhammadin il amin wa ala alihi wa sahabati ajmain wa radiyallahu an xaadimihi malazina dunia wal axira alcheikh ahmada bamba xadimi rasul wa ataala allahu baqaa xalifatihi alcheikh muhammadin il muntaqa xafidahu llahu taala wa raahu bokk yi nga xam ni yéen a ñuy teewlu ci seen Eh, kër gi di As-Samadiyya eh, TV ñoo ngi leen di nuyu fu ngeen ban di nekk di leen ziyaara fii ci Daarul Minan ci kër Cheikh Mouhamadou Mountakha eh, di am mbégte lool ginnaaw bi nga xamee ni defi nañ ndigal li nga xam ni moo ko santoon kuréel gi di Madhoun Nabil Mountakha ci ziyaar ak umra boo xam ni dañ ko defale woon Cheikh Mat Bamba Khadimu rasuul waaye defi woon première édition bi ginnaaw bi ñu demee ba def liñ war a def lépp ñu ñëwaat fii ngir sant ko ñaanal ko waaye delloo ko njukkal waaye tam gaaral ko tamit li nga xam ne moom lañ fa eh, jot a def eh, su ko defee ñu ngi sant bu baax a baax Serigne Abdou samat mi nga xam ne moo ñu may opportunité bi ndax ba liggéey bi jógee ba léegi mi ngi ko ànd ak ñun eh, ni ko jëwriñ waxe Serigne Abdou Lahad bi ñëwee fii rek dafa xamle ni ginnaaw biñ fi jógee nañu def émission ñuy sant bu baax a baax waaye di wax rek ci turu euh, comité scientifique e culturel bi nga xam ni ñoom ñoo saytu woon liggéey bi te Serigne Alassane Diouf Baye ko xaside yi jiite ko muy comité boo xam ni ay waroomi xam-xam ñoo ko euh, ŋànkoon def ci liggéey bu mucc ayib ki ci jiitu noonu ko waxee muy sëñ Alassane Diouf mi nga xam ni naka jekk lu jiitu madu nabil muntaxa di ji di juddu nekkoon na ku ràññeeku ci xeex ci li nga xam ni mooy maxaarijul xuruf ak sëñ Tuubaa li mu bind ñu jànge ko noonu sëriñ Maamun Mbàkke di ko ràññeeku yàlla dogal na euh, bokkul woon sax ci ñi teewoon ca barab yooyu waaye teewal nañ ko waaye ku sonnoon la lool ci liggéey bi ci saytu gi doon saytu njàngum xaside yi nga xam ni jànkat yi doon nañ ko enregistré naka noonu ku mel ni Serigne Mamadane Mbacke euh, ci kenn la ci mbooloo mi moom it ci comité scientifique et culturel Serigne Assane Bousso ni ngeen ko gisee Pastef bii mu àndal euh, physiquement Pastef boobu moom la amee woon scientifiquement ci biir liggéey bi nekk koo xam ne doon na saytu bu baax a baax audio yi naka noonu euh, Serigne Bousso Seck duñ ko fàtte Serigne Mouhamadane Fall moom gis ngeen. Eh, doomam bokkoon na ci ñi nga xam ni ñu ngi ci kuréel gi yàlla dogal ñu teewe woon jataay bi moom it bokk ci comité bi naka noonu sëriñ Xaadim Njaay tasawuf mi ñëpp xam ci biir la woon oustaz Alioune Jonn naka noonu ñoom ñëpp sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Njaay moom it daa bokk ci ñi nga xam ni waajoon nañu ba eh, déclaré leen ci ñi waroon a dem bañ tàggu seeni seeni seeni seeni njaboot yàlla dogalu ko kon daal ci gàttal euh, ak ñeneen ñun tuddul ñii ñoo doonoon saytu ñi nga xam ni mooy liggéey bi nga xam Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo sàkku ni moo sàkku ni bu ngeen di dem ña ngeen di yóbbu nañu nekk ñoo xam ni danañu man maxaarijul xuruf noonu la ko sëriñ bi waxe bëgg-bëggu sëriñ bi nag moo waraloon ñu créer comité boobu ngir fas ko yéenee amal amul woon nag xaaj ak seen loolu tam ñu bàyyi ko xel mboolem ñi ñuy déglu di ay jànkati xasida fun man di nekk niñ doon tànnee amul xaaj seen ñii ma fi tudd sax ñu ci bari xamuñu woon jànkat yi ñu ci bari xamuñ jànkat yi audio yañ doon déglu xamuñu ndax Abdoulaye Diouf a ko jàng wala sëñ boole Mbay wala sëñ Amdi Touré xàmmeewuñ ci woon lool moo tax gis ngeen tànnin wi ni mu demee bu fekkoon aw tur lañ doon tànne yaakaar naa dina dina demee nen neneen waaye li ëpp ci ñun doon tànn ñu ci bari xamuñu leen loolu moo ci dugal tey ñu baree bari loolu tam ñu ngi leeral jànkati xasida yi ni madhu mun muntaka comité scientifique et culturel ubbi na buntub maanaam ànd ak yéen ci liggéey boobu ndax ni ko moom Mouhamadou Mountakha waxee léegi ni luy wëy la dañoo fas yéene at mu jot ñu àndandoo fi ak ay jànkat xasida yu yees ca barab booba ku ci bokk nag yaa ci boole sa bopp la nga cay boole sa bopp mooy def yitte ci maxaarijul xuruf boo mënee am ku la ko defal xayrun soo ko mënul na madu mun taxa ubbil nañ la bunt fas yéene ànd ak yow ci jàppale la ci ci wàllu googu su ko defee loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp beneen bi ci dolleeku mooy noonu ko waroom xam-xam yi saytoo noonu la ñu àndandoo dem ca barab yooye yëkkati fa xasida yi yëkkati gu mucc ayib ba yàlla defal ñu fa ndam lam ñu fa defal ñuy fàttali itam ni xasida yi ñu fa doon yëkkati noonu ñu ko doon yëkkatee ñëpp di ko dégg nooni la nationalité yu wuute di fa ñëw di yëkkati seen maanaam xeeti ñaaniin te ñun nag li sëñ Tuubaa bind dañoo gisul ci ñun lu ko gën a kawe moo tax ñu tànn xasida sëñ Tuubaa yi doon ko tawaafe doon ko dawee safa ak marwa doon ko yëkkati madinatu munawwara ak badar fu ne ndax mbooleem ku fa ñëw rek la nga xam moom nga indi ndax buntu boobu yonent bi sallallahu alayhi moo ko ubbi ginnaaw rabbana atina fi dunya hasanatan ba aaya jeex la yonent bi ubbi ci buntu mooy nag bu boobaa lu waay am ci aajo Ah, man na koo ñaane tawaafe ko kaaba ñun nag dañoo xam ne suñ tubaa suñu lépp ci biiram la dëxañu ñu jël xasida yooyu doon ko tawaafe te noonu ñu ko doon defe na ko ñëpp doon defe yaakaar naa Cheikh Mouhamadou Mountakha ci vidéo yu mujj wax na ni noo loolu ngeen fa doon def la fa ñëpp doon def rek loola nag tontu na lépp kàddu yi tan tayam itam doy na sëkk waliif ci ñuy leeral ñuy leeral leneen su ko defee ñu fas yéene ànd ak mbooloo mi at mu jot defe ko defe ko noonu mooy yëkkati xasida de Tuubaa yi ca barab yooyu su ko defee bokk na ci li ñu euh, ndam liñ ci am mooy ku ne gis nañ bi ñuy daw Safa ak Marwa ay nationalité yu wuute am na ci koo xam ab algérien la am na ci koo xam ab égyptien la am na ci koo xam ab ira Irak la dëkk ñi ñëpp di ñoo xam ne arab lañ nàmp dégg ko dégg li kuréel gi doon jàng mu intéressé leen ñu ñëw dugg ci biir ba algérien boobu moom dafa wax ni ndax man ngeen maa may ma ànd ak kuréel gi njàng mi ñuy jàng ñu yëkkati mawaahibu bu video yëpp gis nañ ko jox ko ko mu ànd ak kuréel gi defe naa kon mission bi jàll na yaakaar naa tamit message bi jàll na te kuréel gi li ko tax a jóg mooy internationaliser mbindum Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul yamale wuñ ko Makka ak Medina waaye partout dans le monde muy États-Unis d'Amérique muy Europe muy asi muy Afrique muy fépp fas nañu yéene mbindum Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul mi dem fa bi ñu demee fi nga xam mooy masjidul aris gi nga xam ni moo nekk ca badar di barab boobu nga xam ni barab bu historique la ndax yonent bi sallallahu alayhi ci xare badar fa la doon ñaane boromam di ko déeyaaleeg moom ba kaalaam wadd seydina aboubacar forkaala ga tegalaat ko ko ni ko sa borom dégg na sa ñaan barab boobu bañ fa demee sëñ Asan Buso bi may wax ak euh, imam bi dafa yëkkati li nga xam mooy jës bu won ko ko waaye li ci yéeme mooy dañ ko won xare badar ni ko sëñ bi indee ci jasbul xulub waaye mu intéressé wu ni kan moo bind li ñu ni ko Cheikh Mat Bamba Xadimu Rasul ca Sénégal mi nga xam ne moo sos tariqa yoonu murit moo ko bind mu ni ndax xare badar rek la indi ci téere bi ñu ni ko waaw bu dee wàllu xare yi de ci xare badar rek la ci indi waaye nag andi na ci yeneeni mbir te mooy lu mel ni eh, rañaanu yonent bi ak li nga xam ne mooy isra ak lu mel ni ay xawaari xam ak ay manaqibam yooyu indi na ko ci waaye maleureusement mbind ma mbind mañ yoroon bokkut ak mbind miñ mën a jëfandikoo loola tam message la bu jàll ndax intéressé wu na bay gëstu ndax yeneen xare yi ñëw na ci loola nag li muy firndeel mooy message bi nga xam ne moo ñu taxoon a jóg suñ borom jàllale na ko falillahi alhamdu li ci des nag mooy eh, nañ doon tànne njàng jànkati xasida yi kooku dañuy bàyyi sëñ Assane Diouf bu ñëwee moom dana ci gën a yaatal incha allahu taala su ko defee dañuy jox kàddu gi sëñ Assane Bousso moom it muy kenn ci comité scientifique ak culturel di ci ko am passif su ko defee mu gën a yaatal incha allahu taala wasalaam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax di julli ci indi sallallahu alayhi wa sallam di cant goo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem di sant bu baax ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi toog toogee jotaay Serigne Touba sant gi nag am na fu mu commencé mu yem kaddu yi nag ba Serigne Mouhamadul Amin Ndiaye yëkkatee kaddu rek yaakaar naa ne sax. yàlla xam na doo doyoon na sëkk ndax kàdd yi jotel na matal na te comité scientifique bi dafa am nu ñu baaxoo bu kenn jëlee kàddu rek day mel ni yóbbaale na ñëpp te moom mi ko jëloon mate na ko sëkk sëkk sëkk te doyloo nañ ko koy wax dëgg yàlla waaye rek dafa bëgg rek wala dañoo bëgg rek ñu gën a leeral mbooloo mi rek ñu gën a xam santaat yàlla bu baax a baax ndax am na ku laaj léegi ne ma xaar ju xuruuf dafa naa dala laaj mm. la mooy ma xaar xam naa danañ delluwaat sax ci la borom indi waxoon ne maxaarijul xurufi sabaat achar ala alladi yaxtaaru man ixtabar lil jaw fi alif wa oxtaahi waye xurufi maddi lil hawaay tante yi te summa li aqsal xalqi hamzun ahu wa min wasatihi fa aynul xaau adnaahu gaynun xaauha wal qaafu aqsal lisaani fawq summa alkaafu asfalu wal wasu fa jiimu chiin yaa wa doori min xaafati id waliya ala duraasi min aysara aw yumnaaha wa laamu adnaaha liman toxaha wa nuuru min torfi taxtu jacalu wa raayido wa raayidoanihi li zohri adqalu wa taahu wa daalu wata minhu wa min uli thanaya wa safiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufla wa daau wa daalu wa thaalil ulya min tarafihima wa min batni shafa falfaama atraf thanaya mushrifa li shafatayni waaw baa mimu wa gunnatun maxrajuha al ghayshuum defe naa ne bu ñu waxee maxaarijul xuruuf al borom ibnu jazir yi mi nga xam ne ci wàllu ilmu xiraa la wax ci wàllu tajwid loolu la ci indi te alquran ni ñu ko waxee wala aqdu bi tajwidi xatmun laazimu man law yu jawidul quraanu aathimu ni nga xamee ne alquranul karim yi noonu la wàccee noonu la ñu salaa sallam santaa nañu jàngee ko ko comité culturel bi nga xam ne ñooy comité scientifique ak lajnatu ilmiya wa thaqafiya di mataw nabiyil muntaxa ñoom dañu am yéene yi dañu am yéene yi képp koo xam ne jàngkatu xasida nga te liggéeyal sëñ Tuubaa ci xasida yi saw làmmiñ mel noo xam ne boo yëkkatee kaddu ci wax ci jàng xasi euh, ci surtout jàng benn xasida ku dul arab ak képp kuy arab bu ko déggee mën a xam li ngay wax mën ko bind loolu la comité bi doon liggéey ci at yi yëpp yoo xamante ni topp tooguñ ci noppalikuñ ci comme ni ni ni ñu ko xamee ñëpp lépp mooy depuis a Cheikh Mamadou Mountakha joxe woon ndigal ñu laajoon ko ndigal ci Serigne Abdoulaye Seck joxe euh, loolu ba mu toqee ci xelam bañ fas yéene see liggéey sëñ Tuubaa bañ laaj ci Seex Mamadu Muntaxa ndigal ba mu joxe ci ndigal na ànd na ko yéen boobu ba tey di depuis boobu ba tey noppali kuñ ci ba tey ñu ngi ciy dox di ci di di ci liggéey di di di ko saytu di ko tànn di ko doxee ni mu gën a jaare yoon loolu bindoon nañ ci sax ne wa muntu wa mundu tilka fatra ma zilna natabaxasu wa natabaadalu ara ma al muridina alladina yansuduuna qasaid ar ruxiya li cheikhna ahmad al qadim fa tadaxu al lajnatu ashuruut allati taatamidu alayha li ixtiyaari li ixtibaari wa ixtiyaari mutawafiqin wa tatamathalu ashuruutu kal aati fekk dañoo bëggoon shuruut yi nga xamante ni comité scientifique bi doon nañ ko tànnee ci doon nañ ko tànnee mbooloo mi nga xamante ni ci kàttanu suñu borom ak ci dogalu suñu borom ak ci tawfiq suñu borom ci lañ demee ci barab yu sell yooyu comité scientifique bi ñu ngi doon tànnee ci. yii maanaam sixatul xiraa mooy njàng mu wér mu mënu ci ñàkk ndax sëriñ bi mbind mi da ko mbind mënum wér ba amul benn yàq ak benn njuumte kon warees na ko jàng njàng mu wér ba ci topp mooy xusnu sawt kaddu gu kaddu gu gu kawe kaddu gu neex kaddu gu tegu ci yoon loolu it buñ waxee xusnu sawt rek kon kon jublu nañ ci kaddu gu gu jaar yoon ba ci topp mooy wa muraatu maxaarijul xuruuf mooy sàmmanteeg maxaarijul xuruuf mooy li mbokk mi doon laa léegi ne lan mooy maxaarijul xuruuf xëy na liñ ci indi sax des naa leer waaye noonu lañ ci mën a gàttalee pour ñu xam ne noonu lañ noonu lañ ci doon tànnee ba ci topp ma xusnu suluk mooy comportement boo xamante ni euh, ku kenn ku la gis di la xeeb ci zahir du am waaye rawat na ci biir kon ponk yii nii ñu ñu lim fii moom la kuréelu a lajnatu ilmiya wa saqaafiya bi di mat matxu nabi yil taxaa doon tànnee ña ñu yóbbu woon fooye si makkatal mukarram ak medina mundoor doon ko dafay doon ko defal sëriñ Touba ñu comme ni ko sëñ Mahamad Lamine Ndiaye waxee léegi daanale ko léegi euh, kuréel gi manqué wuñu dara ñàkkuñu dara bu dee ay so ay ay ay ay woykat am nañ ko ndax xasida gii mu jébbal tey Cheikh Mahamad Muntaxaa di ci tënk tey euh, lay fañ jaar ku gis sëñ sëñ Muntaxa ni mu mel tey wuute na ak nam daan mel ndax bég na lool lool lool ba jéggi dayoo maanaam bu ñu waxee ne buñ buñ ñëw bu bég de jéggi dayoo ñu ne bég na ba yegg ci maanaam kontaan na ba ba ba bay sikkire ka maare ci xaside gi ndax waaw te li ci am solo mooy xaside gi euh, kii ko loon taalib de sëñ Mouhamad euh, sëñ Mouhamad Lamine Ndiaye da ko da koo tartib da ko sard maanaam toftale ko fépp fuñ jaar étape par étape étape par étape te loolu la sëñ Tuubaa bëggoon ci zaahir te mënu faa teg tànkam ci zaahir xasida yëm doon bind fa ko doon bindee lañ taxaw di la taxaw mu bind ko foofu la gars yi murid doon taxaw doon ko fa jàng nit nga xam ne boo taxawee Makka wala nga taxaw Medina di jàng alxuraan léeg-léeg nga jàng aaya alxuraan boo xam ne da lay wérti la woon léeg-léeg nga jàng aaya alxuraan da ngay xool foo xam ne da lay wérti wóor ne lee taxaw yàlla wàccee ko ni ki noonu tim xasida yi ñu doon jàng dañ koo jàng ci barab yoo xamante ni da lay wérte wóor ne sëñ ba mu koy bind lii taxul ma ko wax ak fii taxul ma ko wax te mébétoon na ñëw pour yeggali ko te mënu ko yeggale waaye ci projet yi ba ci ba lépp ba na ba ba ba sa taax yi na wala daa ba poussière ba di jolleek yëpp xatal xuraab xatal xubaar sa taax bay na jibaana wakkam yi loolu lépp montagne yooyu ak beñ bëb yëpp tey murid yi taxaw nañ fa yëkkati fa xëcc sëñ Tuubaa yi waaye lenn amul ci loo xamante ni lu ci jare sant yàlla rek mooy gannaaw bu sëñ Muntaxaa bëggee ku merati yaa xam gannaaw bu sëriñ Tuubaa bëggee ku mérite yaa xam kon projet bi du du du du boo waaw kay projet bi day projet boo xam ne sëñ Tuubaa ko tëral boppam moo ko tegal boppam du hasard ñu tuddee xës ñu tuddee kuréel gi matxu nabiyil muntaxa te sëriñ Tuubaa wax ci biir ne wahab li xaamili haadi alxuruufi maa yuridihu fi makkata wal dina waxaat ci biir ne xasida dëggi maanaam day nekk loo xam ne at mu jot yasruhu xattuya fii kulli sana wa xayruhu min xidmatin mustaxsana wa xayruhu min xidmatin mustaxsana dafa gën a dafa gën a dalalaat suñu xel am na kon yeneen yoo xam ne yeneen liggéey yoo xam ne ñu ngi ñëw yoo xamante ni ci barkeb matxu nabiyil mutaxa bi ci lay jaar ba ñëwaat ndax wa xayruhu la sëñ Tuubaa wax min xidmatin ci ay xeet liggéey yoo xam ne mustaxsana du nekk yoo xamante ni du du nekk liggéey yoo xam ne mustahjana lay nekk déedéet yoo xam ne dañ koy juuni di ko ŋàññi déedéet waaye yi mustahsana la kon day neen benn day mel ni kon projet la boo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko tëral boppam kon loolu sant nañ ci bu baax gërëm nañ ci bu baax liggéey bi nag benn buntu tëyu ci benn buntu tëyu benn bunt amul benn bunt bu ci tëju lépp loo xamante ni ab taalibe wala ab murit wala ab julit bëgg na ko ci yéene na ko ci bu ci jaare mën na ko am mbokki taalibe yi maa ngi ziare képp ku fi teew ginnaaw loolu ñu fa yéene di ziare Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal bu baax a baax ba toogaayam bii yal na ko eggale ci sagoom te yal na am yal na tase ngërëmul yàlla sunu borom di ko ñaanal bu baax di ko ziar di ñaanal Serigne Abdou samat mbakke ci pas-pas bi mu am ci liggéeyub maamam bi moom it ànd kook magam ju baax ji di Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ziare mboolem kuréelu Madhoun-Nabil Mountakha di am benn appel bu may lancé rek boo xamante ni maa ngi ko jëmee ci mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy dund xasay te nekk ci àdduna muy jàngkatu xasida yi ñi benn bennal di rajas ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbooloo leen di wër ñuy jàng njàngum awu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréel ak ñiy duru sax kon mën naa ne ñetti pàcc ñeenti pàcc la ñi nga xam ne mbooloo ñoo leen wër ñuy jàng njàngum aw di fanaan ci ay baas di dem ci ay dëkk yu fasantikoo ak kuréel yi nga xamante ne ñoom ñooy doon kuréeli mawlud di ak ñii benn bennal di rajas ak ñii durus génnewuma ci kenn di wax ne message bi mooy kuréel bii di Madhoun Nabil Mountakha kenn ku ne xam na ni sëriñ bi insisté na ci ànd koog ñoom ci liggéey bi kenn ku ne xam na ni sëriñ bi insisté na tey jii ba mel ni dafa dafa wax adduna ni leen kuréel bi samp na na ñëpp képp kuy dund xasida ñëwul ànd ak moom may wax ni képp koo xam ne yaa ngi ci biir àdduna tey jàngkatu xasida moo xam ngay kuréel wala ngay benn bennal wala ngay dem mbooloo di topp sa ginnaaw ngeen di fanaan maa ngi leen di woo ci liggéey bi woote boo xamante ne nag du sama woote bopp woote Cheikh Ahmadou Bamba la ndax sëñ Tuubaa ku namul ku ko nam képp koo xamante ni namulaa wax nga liggéeyal ko du la jox ay jumtukaay te jumtukaay yu ëpp doole xasaayit gisuma ko jànkatu xasida jumtukaay bu ëpp doole xasida ci moom gisuma ko te kon bu ñu dee dund xasaayit sëriñ bi di liggéey lu ci xasida yi ngir ñu gën koo sellal ci wàllu maxaarijul xuruf kon képp kuy jànkatu xasida bul beru fa nga toog yaag sa mbooloo ni déedéet bokkuma ci déedéet bu kenn def noonu yow ak sa mbooloo simpikul ñëw fa séene ñu tàggat la ci wàllu maxaarijul xuruf boo delloo ci sa mbooloo nga saytu ko tàggat leen ci loolu mooy doxal liggéey bi kon maa ngi lancé appel ci képp kuy jàng katu xasida moo xam ngay rajas wala nga kuréel wër la ngay jàng ñu lay tontu wala muy kuréelu mawlud fu mu nekk ci àdduna kuréel bi moom pare nañ pour takku ngir liggéeyal sañ tubaa ci loolu yoonu makkatal mukarram ak ma diinatul madinatul munawwar nag day loo xamante ni sas la woo xamante ni sëñ tubaa faw comme demul ci zahir ay taalubeem dinañ ko demal ci Zaire ku fa war a dem ku ne rek sëñ bi tudd na la te xam ni da nga dem ñi fi desoon te waajoon bay waaja a maa ngi leen di jox message bu toll ni nanu xam ni ñoom ñoo yónni woon ñi dem ñi fi des ñoo téye woon liggéey bi te kenn ku ne ànd naag pas-pas bu toll ni defar boobu ba nëgg ni ci nga nekk te noppi di defar waaye ku mu doon ci kuréel bi na nga xam ne yow yaay aji kii defar liggéey bi moo xam ngay góor wala jigéen ñu jàppandoo ñun ñëpp comme ni ko sëriñ bi bëggee ndax sosu na tey maanaam tàmbali woon na ba dem ma mën a wara waaye mel na ne yeesluwaat nañ tey yeeslu gi ñu yeeslu tey nag na ñëpp takkaat seen i ndigg gën a boole loxo yi gën a fasante loxo yi ñu jóg ndax kat sasu nañ asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki murid saadiq yi maa ngi leen di ziyaare euh, maa ngi yëkkati suma nuyoo di ko jëmale ci ki fi nekkal Serigne Touba a Cheikh Mountakha yal na suñu boroom def ci fanam kéemaan noonu ñu ko ko ñaanale sànq euh, ñu ngi nuyu itam ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi xëyal wala ñuy gontal lislaam ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yàlla na suñu borom dolli leen ndam waaye ñu ngi nuyu di jaajëfal di ndokkeel di tatagal di féliciter di approuver baat bu ma xam rek baat bu ma xam rek bëgg naa ko cee jëfandikoo maa ngi koy teewal ci suma xel bu ma ko waxee ak bu ma ko waxul muy lépp lu jëm ci baatu tatagal ak yëkkati ndokkeel ak lépp lu ci aju rek ñoo ngi koy yëkkati di ko jëmale ci suñu jëwrinu bopp muy jëwrinu liggéey bi nga xam ne moo ñu may tawféqu ànd ci liggéey bu Sëñ Tuubaa nangu liggéey bu Sëñ Tuubaa gërëm liggéey bu Sëñ Tuubaa ba tey jii tey la mujjee joxe ndigal ci liggéey bi mujj cee joxe euh, euh, feu vert ngir liggéey bi mën a dox jëm kanam kon tey noonu ko sëñ Xasan bu sa waxee sëñ Alioune ci bu waxee ko ñëpp waxe ko liggéey bi yeesaat na tey peq jogaat nañu aw jógin euh, aw jógin nag aw doxin la laaj bu ko defee nag ñu mën a li ñu bëgg yëpp ñu mën koo def ndax sëriñ bi moom lañu àndal sëriñ bi la ñuy demal sëriñ bi lañuy jëfal kon lépp luñ ci lu ci bëgg rek Euh, loolu dafa war a amee ci ñun te loolu euh, yoon wi leer na may sant bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ ma boole loon ci commission muy commission scientifique et culturel ginnaaw bi ma sante nag commission yi yëpp nag ndax liggéey liggéey bi dafa mel ni euh, noonu ko noonu ñoo defee ci bâtiment rek bâtiment ñu bëree ko seq ñu bëri ñoo ko seq kenn ku ne bu liggéeyee jox morom ma noonu rek la liggéey bi demee commission yëpp noonu la demee commission benn bu ci ne jàmbaar lañu te mënta ñàkk waaye commission culturelle bi nga xam ne nag ñoom la seqaloon directement muy ay jàmbaar di ay euh, ñay xare maanaam di ay borom xam-xam di ñu bëgg Serigne Touba te doyloo ko te wóolu ko ñoo xam ne kenn ku ci ne dafa am foo nekkoon. di liggéeyal Serigne Touba liggéey bu rëy bi nga yëgee mel ni dañ laa ñoddi nga ñëw ñun ñëpp ñu daje kenn ku ne wóolu euh, morom ma kóolute goo xam ne jéggi na dayo da ngay yëg ne ñii sëriñ Touba leen boole ab liggéey ñu ànd di ko sàmmandoo mosuñoo wax ñaari kàddu benn kàddu rek lañ mës a wax ku ci yëkkati kàddu euh, day fekk mel ni morom ma loolu moo nekkoon ci xel ma loolu tawféex gu rëy rëy rëy la ndax liggéey bi day gaaw am na noo xam ne buñ ko tasaaroo woon dara liggéey bi du mën a gaaw ndax diir bu ndaw lañu amoon bu gàtt gàtt gàtt gàtt ngir saytu ñi waroon a jàng yépp biñ leen saytoo war leen a tànnaat ci aw tànnin muy sélection ba mu doon bés boo xam ne itam bés bu mënoon a xat lool la waaye xam-xam bi di benn bëgg-bëgg bi di benn yitte bi di benn euh, loolu moo waral. mu gaawoon lool ba ñu def ko defin woo xam ne euh, kenn kenn yaakaar naa mënuñ caa jam ndax liggéey bi kat nii la tëddee nii la na ngeen ko xamit ñëpp xam ko mooy gis nga ñun bu ñu noppee ci commission culture scientifique et culturelle ba noppi ñun bu ñu soobee ñun ñu randu képp koo xam ne boroom xam-xam nga te xam xasida xam lakku arab ñu jébbal la ñi nga xam ne ñoom lañ doon liggéeyal ne la aywa xool leen leen ba xam loolu mooy liggéey bi ndéem nag ndéem nag mënuñu loolu nañu xam ne liggéeyuñu waaye ñun liggéey bii ñu defoon tàmbali ko noonu la demee liggéey yi ci toppaat it noonu rek la war a deme mooy bu ñu noppee nañ ko jox waa rawdu rayaahiin wala ñeneen ñuy ay borom xam-xam ci réew mi ne leen xool leen leen nañu sax ñoo xam ne bokkuñu ci yoon wi lan lañ lañuy xool mooy li ñuy wax. te Serigne Touba mi nga xam ne moo ne leeru làkku arab suñu borom moo ma ko jox làkku arab si boppam suñu borom moo ko moom loo def ci loo xam ne kenn laa wax kenn mosu koo def ba arab yi di wax naan ndax da yàlla ndax yow dañ laa may nag ngay tooñ arab yi ci jël seen naxwu ak euh, seen euh, seen seen littérature arabe dégg nga kon Serigne Touba loolu ñëpp xam nañ ko ne moom moo ko def moo ko sottal moo ko am léegi nag bu ko defee lan la mooy bu bu boobaa. képp koo xam ne dégg nga arab ñu la joxee ñi nga xam ne ñoom lañ doon liggéeyandool tànn leen ba bi boo leen leen dégloo nga mën a ni ñu signé loolu mooy objectif bi waaye du njàng moo xam ne ñenn dañ koo mën a déglu ñeneen mu ñu koo déglu loolu moom dugguñu ci ndax nag li tax ñu ñame te danaa ko wax ci kanam àddina bi ñu xam ko dañoo ñame ndax li tax ñu ñame sëñ tubaa moo ñu jox ndigal muy sëñ Muntaxa def ñu wax ne def leen lu mel ni équipe équipe nag ku ne xam na ko mooy kii day mën lii kee mën lee kee mën lee ni ma leen ko misaale sànq bu ko defee nag nee ne ñu dellu maanaam liggéey bi li mu laaj moo ñu dellu ginnaaw dooñu waat liggéeyu xasaayid yi di jàngi xasaayid yi ma xaarijul xuruf lii sëñ Muntaxa ko wax kon ku nanguwut a dellu ginnaaw ah man xaw ma si sa mbir dara ndax mun Muntaxa moo ko wax nañu arrière delluwaat ginnaaw dooñu waat liggéeyu xasida yi kon ak fonkeel la waxaat ndax am na juróomi ñeenti baat yu mu waxoon liggéeykatu xasida yi bëggkatu xasida yi fonkkatu xasida yi xamkati xasida yi ñii ñooy équipe bi kon wakay wakay jàngi leen xam-xam ba am xam-xam waaye nee na xam-xam bu sell bu ko defee door a ñëw nag liggéeyale ko xasida yi kon na ñëpp dégg ne ñun ndigalu Serigne Touba lañu am ku am ndigalu Serigne Touba nag di yox yoxi xaw ma kan ngay doon waaye du commission culturelle bi moom ak scientifique bi lim mën a doon daal mooy yaquulu abdullahi wa huwa ahmadu xadiimu man sumaatuhu muhammadu mu leer nañ alhamdu lil xaqil mubiin man kawnuhu li yabiin alal kitaabil mustabiin maa jamii niami mu leer nañ yii daal ba xasida yi àgg loolu rek la ñuy cautionné ndax dañoo bëgg fu ñu dem duñ fa jam sëñ tubaa sëñ tubaa du ku ñuy jam ndax moom defal na ko boppam ba noppi kon nag yow mi nga xam ne yow yaa war a yaa ko war a saytul nag saytul ko lu leer nañ loo xam ne mën nga koo ko jébbalaat ne la siñ bi lii laa la saytul xoolal ba xam bu ne gongo ñu ne gongo waaw bu ne njuumte sàngama ngi ci ñu dem defariwaat ko ñun nag nañu xam ne jàngkat jàng la ñu wax nañu bàyyi xel loolu itam ba tey jàng léeg-léeg ma dégg ñu koy wax ci émission yi mais jàng kon mënagoo kon nanga am ak oyof na nga am ak taalibe na nga defaru defaru bu toll nii ndem yow mbindum Sëñ Tuubaa ngay jàng te bëggoo jàng leneen lu dul mbindum Sëñ Tuubaa boo ko jàngee te du noonu buñ la nee du noonu nga ne ah nan la bu ñu la waxee ni mu doon nga def noonu mu doon bu ko defee yow di nga ci am ngërëm am ci ndam am ci tawfiq am ci fayuk Sëñ Tuubaa am ci mbégteb Sëñ Tuubaa am ci mbégteb yonente bi am ci ngërëmal yàlla ndax Sëñ Tuubaa moo waxal boppam ne ci xuruf yi ne suma xuruf yi nañu làq ngërëmal yàlla la gën a màgg kon ñu ni mu waree yaakaar naa ne Eh, eh, loolu dan dana baax bi kulli xarfin min tihil xurufi busharatan yan mu biha maaruf yi xoolal xuruf yi ah eh, tihil xurufa ka jamii salawaat xoolal xaraf yi ci boppam lay tudd laa wax bu ko araf bu ne da ko war a jox ak xam noonu ko sëñ Mouhamadou Lamine Ndiaye ak sëñ Xasan Bousso ñooñu jànkat yi nee na da ngay jox araf bu ne xaqam wa mustaxaqahu kon loolu nañ ko bàyyi xel kon liggéey baa ngi nii ubbeeku na ci kenn képp koo xam ne bëgg nga ànd ak ñun ci maxaarijul xuruuf danañ la ko def dinañ la ko defal ba nga mën ko ba kenn du la ko dàq ndax li ko waral mooy ñi fi nekk sëriñ bi moo leen waajal ci loolu du càgg ne nanga mag naa ndax sëriñ Mouhamadou Lamine mii maa ngi leen ko wax te bàyyi leen ko xel tey yéen xam ngeen ko ndax ku kuy wax bu waxee dëgg xam na bu waxee dëgg ñi koy déglu xam nañu moom bi mu euh, tàmbalee di tafsir xasida yi kenn ku ne am nga dégg ci xasida yi goo xam ne mosoo koo am ndax bu leer li làmmiñ bu leer bi waaye bëgg xasida yi waaye judd ci xasida yi waaye mu jaral ko mu koy gëstoo fañ ko war a gëstoo yëpp baat yi nga xam ne dafa ñëw ci xaside yi ta euh, euh, doo ko gaaw a gis ci euh, ci ci ci dictionnaire yi dana ko wut ba xam lan la firi dëgg dëgg dëgg dëgg ak maanaa nga ca suñ bu jublu woon dëgg dëgg dëgg ca ca ca sax ci waxin rek ci waxin ci waxin rek laa wax bu ko defee mu indi ko bu ko defee boo ko déggee sa xol da ciy tooy sa xol da ciy leere kon manqué wuñu dara kon na ngeen jàpp bu baax a baax a baax képp kuy dégg na nga ñëw boo ñëwee ñu ànd ak yow ba nga mën li nga war a mën na nga ko war a mëne incha allahu rabbi haajat qasaidi quluba alhamala lil arshi wa hiya busharun lil kamala haajat qasaidi quluba alhamala lil arshi wa hiya busharun lil kamala ida katabtu htazza arshul maliki واهتز بالتسبيح كل ملك ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله إن كتابتي عند الله تخزي ذوي الكفور والملاهي مد لك الكلي خير الناس ما صان عمري علغ الخناس نفى الشياطين وما والاها لغير ضري أعبد الإله أكرمني الأكرم بالقرآن وجاد لي بمورد الظمآن أكرمني الأكرم بالقرآن wajaadali bi mawridi zam'aani lam tanxuni waswasatun aw lahwu aw kadarun aw aafatun aw sahwu laa yantaxi li majlisi shaytaanu wa taaba lilmamarru wal awtaanu akramani bi sirrihi alxafiyi man qaada xattiya ila alkursiyi hibaatu dil arshi wa dil kursiyi qad taharat umriya bilqudusiyi hibaatu dil arshi wa dil kursiyi qad taharat umriya bilqudusiyi ida qara'tum qaadatil ujuur إلى حياتي ولا أجور لساني احتمى كقلبي والحسد عن الفضول ومبيعي ما كسد إلي قاد مالكي أثماني لي طابت الحياة كالأزمان نابت كتابتي عن السلاح waljawalaani li zawi salaahi zahara li kawni abdallahi bihi xadiman li rasulillahi madda liya sirra almasuuna man jacal xatiya akbara ridaahu fan jacal akramani l akramu walmukarrimu wali siwaaya farrati l aramramu limaliki quttu lada aljawaari almunsha'aati haadifa albawaari quttu lada alaskari walafwaaji muzahziha assufuni walamwaaji صرف ضري للذي قبل مكر من عند جنده جهادي شكر يقود للأجر بلا ميزان من جوده بشرهم ميزاني درجتي بغير مكري ترتفع وإنني بأجر ربي أنتفع hibaatu man jalla an ilmithali taquudu li ma gaaba an amthali tanqaadu li li jannati llahi al ujur walastu anxu gayra xayrin la ajur hadaaniya allahu lada tagarrubi wa qaada li fi lxatti xayra qurabi akramani bi kawni xatti indah mimma yubaahi fil jinaani jundah zabbat kitaabati li gayri allain wali siwa umri zabbahu almuin haajat qasaidi quluba al anbiya مع الملائكة عيد ربيا xasida gi ñoo jàng léegi mel ni ci mool bi xasida gi lim def mooy wal xasad niñ ko jàngee mooy wal xasad ndax noonu la bind te li waroon a nekk mooy wal jasad